jëloon gaal yi pour dem yàlla dogal ni mooy loolu fi lañ terse est-ce que fekkee nga mbir yi fekkee non fajar bi nag laa fi ñëw ne ma ñoom mu ñëwoon na entraînement dama doon entraîné fii mu ñëwee laa gis ay ay ay koor fule ay koor yu bari ba nga ñëwee tranche d'âge bi gis nga sa waaw bëri na ay ay jeunes nag la bokk Sénégal fu mu métti jeunes yi instant yi kenn bëggatu fi toog sëriñ Bamba mhm. saa nii ñu bëri mooy loolu buñ gisee buñ gisaatee gaal sa am na ñoo xam ne dañuy dem ñàkk a pexe rek xamul lu ñuy def suñu papay suñu yaay rek suñu rakkay suñu xama sinon ñu dañuy jël gaal yi dem. même ak li nga gis nii. ak lu ñu gis nii parce que mooy loolu gaa dañ sonn mais tamit nguur gi tamit seen bopp lañ fi nekkal xam dañ lay yow dañuy wax def nañ lii si xam nga emploi du jeune xam nga yow def nañ lii ay milliards wala lii ay lii doo gis dara ak seen Bamba. est-ce que tukki tekki ngir tere sa waaju jar na nga jël gaal gi nga xam ne. jar na lépp. jër na jël affaire bii nii sax toog si ba kaaw bii nii ko jël bant bi toog si nii di joo ba dem ba yegga am vie bu baax moo gën quoi parce que Sénégal boo amul duñ la considéré am lu ma yàlla nag mooy maye ku nekk sa wërsëg mais Sénégal boo amul duñ la considéré tey ji ban appel ngay lancé yow yi wala jeunes yi ah, ñu gën a ñu gën a rek maanaam xam rek maanaam ñu. ñu toog fi tekki fi daal. fi amul toog fi tekki fi mënatu fi am. toog fi tekki amul. fi am ñoom ñoo fi toog tekki fi. Hmm. ñi nga xam ne seen papa yor nañ ay millions ay milliards ak casé nañ ñun pauvre yi ñu fi toog tekki ñu nga xam ne mooy loolu ñun ay pauvre lañ dañ dukure seen bi ñun dañoo dukure ba tas lii dama bëgg ngeen génne ko président wu gis ka jeunes yi dañ sonn man jour laa damay entraîné chaque jour des ma entraîné du ma am lu ma ndékkee essayer comprendre des fois nga romoom maire bi xam mooy loolu des fois sa nga xuloog maire bi parce que yow yu mu lay wax sa morom lii wala lii lii xam nga est yi ñoo ci poussé seen parce que boo nekkee a dem. parents am nañ si part de responsabilité. Mhm. nguur gi am nañ si part de responsabilité jiite am nañ si part de responsabilité parce que tey jii yow mënoo nekk jeune am sa toll foo xamante ne war nga am xam nga xam nga ñun nekkuñ ay dem liggéey meneebaru nii ay journée trois mille boo feebaree da ngay dee doo faju loolu la mënal dara sama lu ma la kon tey jii gars ñoo war a am beneen système boo xamante ni mun nañ ko tegal jeunes yi pour instant boobu boo bëggee dëgg dëgg bokk pour maanaam jeunes toog fi nii xanaa ñu xanaa ñu jël kaaba indi ko fii maanaam Europe. ñu déplacé fii jël fii yóbbu ko foofu. ñu toog fii. mais bu waaw euro du oh, maay tamit. da mm-hmm. ngay gis. Eh, da gis da gis changement bi quoi da eh, gis ñeneen ñi bu ñu demee yàlla nag moom mu wërsëg nag yàllaa ko yor waaw wërsëg moom yàllaa ko yor mais ñiy dee fii nii nii nii deewuñu ngir dar xam lu tax ñu dee dañ dem dañ demoon pour uti dañ jógoon pour dem am lu ñu amal seen bopp maanaam dañ demoon pour tekki tere seen papa seen yaay seen mbokk xam nga loolu moo taxoon ñu dem bu doon bu xam nañ ne bu ñu demee dañuy dee duñ dem de. xamoon bu ñu xamoon ne bu ñu demee dañuy ñëwaat maanaam faatu nii duñ dem waaw ah, mais nag waaw. a ah, situation bi de mu ngi noonu ñoo gisandoo te ñaaw na trop ñaaw na trop moom ñaaw na ba fu mu yem moom mhm. parce que nga nekk ndaw nekk sa digg doole war a liggéey mhm. nga mujjee ci gaal dafa métti mais xam nga man li ma si métti mooy nañ bàyyi di critiquer booy quoi mhm. bàyyi di critiquer jeunesse bi gis nga jeunesse bi seen wareef lañ def barke Seydina Mohamed du ma si critiquer kenn. parce que tey dafa métti nga nekk ci ab réew nga am diplôme jàng am diplôme am sa métier yow mënoo liggéey tey gàll tey gaz bu cent sax mënoo koo fat gaz bu cent mënoo koo fat yow maire bi nekk ci ay problème yoo xam ne chaque jour yow sa rak yi sax ñu ngi yaakaar si yow tey kooku bu amee fulla am fayda fu mu ko wute rek day ne baax na booy xalal du ma leen nëbëree booy fu nekk gas nañ ko ci senegal yi pour jéem a am barke Seydina Mohamed mais xalal dafa doxul. parce que ñi toog si alal bi jàppale ñu jeunesse bi jeunesse bi xoolal ku si amul sax diplôme laa la wax ne war nga mën a liggéey man tey su ma leen nee jàng naa doo leen ko gëm te menuisier ñoom la ku amul sax diplôme amoo métier xoolal war nga mën a liggéey parce que tool yaa ngi fi booy naaguñu dañoo mujjee xaddi booy xoolal am nañ doole mën nañ liggéey bay tool yi état jàppale di leen fay yow baykat yi sax dañoo daw génn laa la wax ne àll bi dafa métti parce que Seydina Mohamed yow waaw ah ci seen information nee nañ gaalu euh, marine nationale bi moo dàqee gaa yi gaa yi ñëw mbëkk ci xeeri fee sóobu ci biir géej gi moo amee moor waaw ñoom dañ doon daw marine nationale bi mbëkku sóobu ci biir géej gi c'est d'après information yi les gars mais daal ñun li ñu wër wër mooy gis nañ ni moor yi am na fi moor yi am nañ te ay immigration ay immigrant lañ waaw léegi loolu moom dafa dafa ñaaw quoi dafa dafa métti dafa ragallu te dafa ñaaw am na ñoo xam ne gis nga te li gën a bizarre mooy que ni booy ñu ngi gis moor yi loolu état dafa war a gëstu ni booy ñu ngi gis moor yi mais booy ñu ngi gën a dem depuis deux mille dix neuf ñaata moor lañ am fii ci biir géej gi gisoo nijaay dama la koy wax te dee rek mais gis nga Sénégal cimetière la yàgg na suul ndaanaan te xoolal day yàgg suul ndaanaan géej gi nii mooy doon teeruwaay bi booy yëpp fi la teer bi ñu moytul ñun li ñuy perte ci jeunesse kenn xamul lu mu toll. ba ci ay jigéen ci biir gaal bi xamale kon Sénégal cimetière la mhm. fii ku fi génn rek rëcc nga barke Seydina Mohamed booy dañuy génn si di la envoyé ay vidéo naan la xalal fu ma nekk nga xam ne Sénégal cimetière la am naa sama benn gaanu moom Maroc fii la dem Maroc fi kese mu ñëw wanaan bàyyi fii yéen boo koy dégg te ngay gis sa morom yoo xam a doon fowandoo booy jël gaal jàll dem di gaare ay 4 x sa kanam di droite di tabax ay immeuble ay waaye ay air plus yow foo jaar yow da ngay naan booy bi ëpp ma fit mhm. da ngay affronter géej gi affronter la mort ci biir si fii cimetière la de fii ndaanaan bu fi dugg amul nga mun fay amul nga ñàkk mun fay mais booy dañ koo aveugle laa la wax ni état na jóg jàppale booy yi ba ci paysans yi dañoo daw àll yi laa la wax nii booy yi di dee si géej gi xaaji ay jaakatu téléphone lañ ak booy am diplôme ay booy am métier mais xoolal mujjul fenn xamul waral lool parce que gis nga affaire mbokk mbokk bu ñu def Sénégal fii nii moo moo war a daj Sénégal boo ko jëlee affaire mbokk mbokk fii booy duñu liggéey xoolal fan la ñuy mujjee agression protection ak xoolal jël géej gi di rayante booy xolal bëggatuñ sax gisante laa wax nii ba ci biir gàlle sax da ngay nekk da nekk sa biir gaale gaa yi di fay lamp yi yow booy sax tuutàngi sax say jarbaat ñoo la fay ëpp maqaama boo doonee gor yow dafa bëgg a traîner bi boo doonee gor da bëgg a boo doonee gor doo bëgg ñu gis la lenn ci loo xam ne lu ñaaw la fooy jaar da jël loo xam ne ay gàll la wala ngay dugg ci yoo xam ne te ma wax la lenn de gis nga barke si dañu naan dañu naan ñii di agressé ay yambar lañ agresseurs yi ay gor lañ dañoo rus a tàllal loxo nit moo tax ñuy agressé ñu affronté la nangu ko moo leen gënal ñëw di la ñaan loolu yëpp xamala la ci état la commencé wàcc suuf scénario bu garaaw la barki Seydina Mohamed na xoolal na état bi jàppale jeunesse bi jeunesse bi liggéey jeunesse yaa ngi nii fu ñu génn gars yi ràññee leen ci biir dëkk bi fu ñu génn gars yi xam ne nii ay sénégalais lañ parce que xoolal naaguwuñu am nañ doole mën nañ liggéey mais jàppaluñu jeunesse bi jeunesse boo ko jàppalewul xoolal li ngi lay mujjee nii xoolal géej géej doon bi jaajëf